asalaamaaleykum Gambie asalaamaaleykum àdduna wërmul képp ñu di leen nuyu di leen wax ne man la seen xarit aada maa dellu si waat fii si seen beneen xeeti programme de City Affairs euh, mu ànd see gan boo xam ne gan boo xarañ lool euh, ku yaanja euh, ñu gën koo xamee si Ablaye Suwareh asalaamaaleykum Ablaye. waaleykum asalaam Ada. nuyu naa la kan mooy Ablaye su tënk rek ak Ablaye lan mooy liggéeyam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp mboolem ki nga xam ne yaa ngi seetaan Sahel TV maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyi ma kenn waaw si gàttal rek ada man maay Abdoulaye Souare judo fii si Banjul Stanley Street foofu la judo number one waaw si gàttal waaw ah, ok ñu ah, dégg ko Ndor ñu ah, gis ne Ablaye bokk nga si ay yëngu-yëngu ndaw si biir réew mi fii si biir hmm. Gambia surtout Banjul moo bëggoon laa wax ne yow lan moo la dugal si yëngu-yëngu yooyu li ma gën a dugal si yëngu-yëngu ndaw yi mooy maanaam hmm? daal ma gis ne ñun ndaw yi li ma si gën a dugal mooy ne dañu dee dañu dee bàyyi si dañu dee bàyyi daal dañu dee. dama gis ne ndaw yi daal ñu si bari dañ dee toog ne ah man duma bokk si yëgu yëgu yuy am si dëkk bi mm-hmm. soo ma gis ne loolu warut en tant que ndaw nekk nekk juddu réew mi war ngaa bokk si mboolem loo xam ne lu yóbbu réew kanam la mm-hmm. war nga si yëngu amu lo, lu am solo ñu gis la nga nek euh, juddu Banjul euh, euh, nga yëngu fi ci biir Banjul ma bëggon nga wax ñu tay yow Banjul ban development nga fi gis tay lo xamne fess na sa ak lan la Banjul soxla right now si development. waaw lolu mom do ma ci laaje mom dina ci content trop mm. because fu nekk ni mun naa wax ne development bi nga xamne mom bo xamne gis na ko si bir Banjul fii nii ma content si lool moy mm-hmm. li nga xamne wax dëgg neex yàlla fa yàlla mm-hmm. suñ président mu ngi koo def muy yoon bi ni nga xam ne yàgg nañ koo jowti yàgg nañ koo jooy xam nga yoon bu correct yàgg nañ koo jooy te mun nañ koo am fu nekk ne alhamdulilahi rabbi yàlla mun naa loolu mm-hmm. loolu neex na si loo xam ne gën naa see kontaan trop trop trop because uh, yoon dafa important trop li nga xam ne foo xam ne nit ñi dinañ ci mën a dox mm-hmm. feel free amoon sax loolu moom bu ma ko gisee kontaan naa si trop waaye tamit li ma loo xam ne tamit bugga naa si tamit की गेंसे गेस्तु मोइन दवी हमने नहीं ने कबीर बांजुल हम नो हमने वे कन्ने हाला हम नहीं हेयु काय हम नो हमने अमुन हे काय वाय हम नो हमने तमिन याला दिन कने लेन लो हमने तमिन याला दिमल लेन लो हमने मोइ ने माना हम स्किल्स माना हम डाल सिलो हमने मुन नहीं को देव सिंह को देव जाए को दिन नहीं अम दिन नहीं मुना दुना दुना सीसन seen famille waaw si maanaam daal lan lañ mën a dimbale njaboot lan lañ mën a dimbale yuut si mooy maanaam daal ñu seetal créatal leen environment boo xam ne at least nañ si mun a jàng skill training you understand just like Crab Island School gis ñu mel ñu ngi ko tëj for ay days for ay years now fu nekk ni ñu ngi ko tëj mën naa loolu so foo naa ne Crab Island suñ ko jëlee ñu jëm ko try def ko skill training school boo xam ne at least ndaw yi nenci muna dem ku ci nekk di nga dem jangali di métier mm-hmm. because métier moom dafa important kon ñun ñëpp ñoo toog di liggéey ci office maanaam daal so fo naa ne eh, di minister of local government and lands and then eh, partnership ak BCC, war nañu muna a jóg gëstu loolu noonu bu baax a baax a baax foofu noonu mm-hmm. because loolu dafa important trop mm-hmm. because métier baax na si doomi réew bu nekk nga mun métier waaw kon nekku na ñëppay mën a toog di liggéey office métier dafa important trop waaw so loolu moom suñ ko gëstoo dina baax trop ku si nekk mën a jàng métier waaw euh, si kaw loolu ñu gis ne am na benn euh, team bu nga xamante ne ay ndaw réew mi ñoo si nekk di wàllum tàggat yaram ñu xam gën koo xamee si football euh, ñu gis le bokk nga si académie bi te bokk nga si ñu soxal académie boobu noonu te yow yaay ki ko doxal te yow muy Afia naka. Afia Banyu Afia Banjul football club bi eh. eh, Academy eh, académique bi yow lan nga ñu mën a wax si loolu waaw loolu moom dinaa si sawar a wax tuuti rek parce que suñ ko buggee wal moom duñ fi jóge boo dinañ ci xaw a tënk tuuti lu ndaw rek waaw Afia Banjul football académique moom biñ ko fam biñ ko door si bij bi la lu ndaw la woon am yenn yenn tubaab yi ñëwoon te gis ñu pare pour dimbali waaw xëy na man dama bokk si coach si but am not the head coach waaw so loolu mu ngi ñu gis ne ne ndawi réew yi ndawi yi Banjul dañ bëgg a football mm-hmm. soo ñoom ñëpp ku si nekk mënuloo jox ñëpp ñoom ñëpp xaalis so nga créé leen plateforme boo xam ne at least nañ mën a ñëw ku nekk di nga mën a soosam sa talent si football mm-hmm. so loolu moo tax ñu gën a try gën a ibi académique bi so mu nekk loo xam ne académique bu rëy fu nekk ni almost mu ngi dugg si seven years to nine years now fu nekk ni mm-hmm. académique buñ ko formé ba léegi léegi alhamdulilah rabbil alamin mun naa ne léegi because académie bi ñoo door lu ndaw la woon mm-hmm. bon léegi alhamdulilah rabbil alamin académie bi nekk na loo xam ne rëy na dafa wide open bi nga xam ne am na ñeneen branches yoo xam ne nekkul Banjul sax mm-hmm. mu ngi ba si boori Kombo bi so loolu moom wax dëgg ne yàlla yaakaar nañ ko di ko dañ bugg a football because amuñ dara luñ jox football but ñu try jël suñ time yëpp jox ko football so loolu moo tax ñu dugg génnaat dugg si fi football bi but but bi moom wax dëgg ne euh, ay ndimbal yi nga xam ne la di jógee from bitim réew so loolu lañ dee jël di ko jox xale yi waaw. Ah, mu doon lu am solo ah, ñu déggandoo ko so ñu gis ne fii nii euh, Ablaye yow ban façon ni challenges yi ngeen di face when it comes si ak Banjul fii. waaw façon ñu challenge suñ dee face moom ada suñ ko bëggee wax comme nu ma koy duñ fi jógee yuut mm-hmm. si moom nit ñi façon ñu challenge si ñoo change in face in Banjul la fa bari mm-hmm. tey dina la jox benn exemple élection mu ngi ñëw politiciens si yëpp dañoo daw ñëw si yuut si mm-hmm. then after politique doo si gisaat benn dañoo ñëw dañu promise and promise and fail so te loolu maa ngi ñaan mboolem politicien boo xam ne yaa ngi maa déglu nag ma déggee te bañ maa dégloo xol because wax dëgga si la bokka understand because ñoom dañoo ñëw ne ok suñ paree youth yi nañ leen defal lii but after fan lañ moo jëlee promise promise promise and fail understand soo challenge yi si moom dafa bari trop because soo xoolee tey soo demee si biir Banjul li nga gis yuut yoo xam ne ñu ngi toog ñu ngi am ay métier ñu bari ñu ngi am ay métier waaye ñu ngi toog am na ñoo xam ne dem nañ school ba jeexal bot amuñ liggéey fuñ dem dugal seen application dañ leen wan ok dinañ la koolaat na mën a so dañoo nekk di toog noonu wala oo ñu dem uti seen petit petit business te yooyu noonu foog naa ne nguur gi daf si war a jël step bu baax a baax a baax a baax pour dimbale ndawi réew ñu seet not bañul bot ndawi réew in general bot su ñoo wax tamit bañul la ñoo gën ñu ñëpp bañul lañ dëkka na mën a staan gon nit ki amuloo dara lu sa fi nga dëkka mooy bañul ñun Banjul lañ so problème yi ñu am fii nii Banjul mooy maanaam daal pour si youth yi pour naka la ñu mën a dimbale youth yi ñu mën a mën a am xëyukaay mm-hmm. ku si a dem am fi sa doole daanee sa doole moom bari na si ah, si place yi su bari si aspect yu bari noonu laa ko mën a waxee mm-hmm. mooy maanaam daal am na si ñeneen ñoo xam ne nag yàlla daf leen may ñu ngi am skills mm-hmm. am na si ñoo xam ne moom yàlla moom daf leen wax ne leen may ñu dem xam nga further education am sax so ñu si mel nii comme am na ñoo xam ne yàlla fi leen baaxee ñoom dañ teel a bàyyi school am na ñoo xam ne niñ liñ teel a bàyyi school yëpp ñu ngi si géej gi di nappa mm-hmm. am na ñoo xam ne welda maan ne so government di war naa mën a dimbale youth si yooyu noonu yaa ngi ma understand créétal leen place boo xam ne at least ñoom dinañ gën a mën a am seen matériel mm-hmm. xam nga di liggéey soo nga xam ne waaye tamit duñ leen bàyyi noonu tamit suñ leen joxee matériel ñuy liggéey tamit at least war nañ leen di leen mën a jox lu mel ni comme like ndampaay e bu nga xamni at least ci li ñoo jàng si métier bi niñ ci mun a gis seen boppa mm-hmm. niñ ci mun a gis su lu bon bon at least at lu tout harama joko su demee dina gën a mën a sawar ëllëg bi mu ñëwaat ndax daal maanaam daal waaw mu doon lu am solo comme ni ko gisee ah, si sa biir wax nga ne government bi war nañu dimbali ndaw yi mm. ah, léegi comme yow sa gis-gis ndaw yi dañ tayal pour liggéey wala ndaw yi ñoo bëggut a liggéey wala ñoo bëggut dara daal waaw ada boobu moom dinaa si kontaan trop mm. because su man dama dee bañ a ndaw yi dañ tayal ndaw yi tawal tayal comme ni ko vice président bi waxee mu ne euh, youth si yëpp dañ lazy waaw loolu moom xalaatam la. Mhm. nee ma understand loolu moom point of view am la boobu moom dinañ ko respect trop mhm. because lu mu bon bon kilifa la si réew mi mhm. waaw ba ni ku nekk ak ni nga xalaatee ak ni nga waxee la yaa xëy na moom ni mu ko waxee ak ñeneen ñi ni ñu ko déggee dafa utee waaye loolu moom xalaatam na mm-hmm. ñu rafetlu ko moom loolu moom xalaatam xalaatam la waaye man si suma boppa man rafetuma rafetuma wax boobu noonu mm-hmm. ñaawlu naa ko trop because man dama ne bañ loolu ne ndawi réew yi dañ léegi non ndawi réew yi léegi ñoom su fekkee ne ñu ne ndawi réew wi dañ léegi mm-hmm. war nañoo mën a créer tal ay plateforme boo xam ne wala utal leen métier yoo xam ne dinañ si mën a dem ndaw yi ku si nekk di nga gis sa boppa ok le le exemple ok nga am benn ndaw boo xam ne mu ngi defar like auto mécanique mm-hmm. government kaa si yëpp ngi am problème government war a dem audi moto audi ah, ñi ko war a defal mm-hmm. soo xam nga ne comme yow Gambien boobu noonu nga jàngaloo auto mécanique yaa ngi ko léegiloo yow mi nga xam ne. Mm-hmm. dimbalewuloo ko yaa mën saan su fekkee ne government seen moto yi dañ am problème ñu isil la ko yow ada yow mi nga xam ne def nga moto auto mécanique das mi ne ñu ngi laa encourage isil la ko ne la ok léegi dañ bëgg pour nga defaral ñu moto yii nii su baaxee den ñu nga coñ nga jox ñu sa nga wax ñu ñaata lañ laa fay den nga bil leen ñoom ñu soo soo defaree la xam nga kooku moom ñu ngi koy encourage mm-hmm. da ngaa gis xaalis bi nga odee nit pour mu ñëw defaral la moto boobu noonu da nga ko fay xaalis boobu noonu fayal ko air ticket fayal ko hotel bills everything kooku dafa ñëw jël xaalis boobu yóbbu ko why didn't you invest it in a boo xam ne at least lu mu bon bon bon bon bon dina ko soo ko ko joxee moom dina ko in fii ni si biir réew mi fii mm-hmm. keneen njëriñoo si mm-hmm. ñu ñëpp ñu njëriñoo si mm-hmm. fo na loolu moom suñ ko defee dina baax trop just like I mean ok am na yeneen am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi toog seen kër yi am na ñoo xam ne yàlla may na leen am nañ xam-xam trop si wàllum moto ñoo xam ne jànguñ wala jàngal nañ ko like technical work bi lañ def xëy na may bi mun naa am defuñ practical work bi amoon na sax ñooñu noonu government waroon nañu mun a dimbale ñooñu noonu pour ñu mun leen a gaada ñoom ñëpp in a place like I mean a big workshop boo xam ne is controlled by government mm-hmm. am understand ñoom tamit government ñu am ñoo a manage mm-hmm. at least lu mu bon bon ñu a am ñu ah, am problème yi mm-hmm. soo joxleen ñu ñaar ñetti électricien pour ñu dem cegal ñu suñ fii suñ pare dem ñu fay leen yaa understand so loolu dina baax trop mu gën nga dem ooy électricien boo xam ne sénégalais la dafa ñu génne suñu xaalis bi dem yoon dafa mel ni yow encouragé leen yaa understand waaw te tamit soo demee tey si bij bi ñaata Gambians ñaata youths of Banjul ñoo fa nekk yow lu mu bon bon bon bon bon sa koñ xam nga ay youths yu bëri yoo xam ne dañoo eewu bàyyi six o'clock dem si géej gi mhm. dem di nappi si tefes bi yoo xam nga loolu enu so su vice président waxee ne ndaw yi réew mi dañ lii si man loolu moom loolu xalaatam la waaye man rafetlu ma ko trop xëy na moom moo moom moom gis-gisam la wax mm-hmm. but man mii rafetlu ma loolu trop because kuy eewu six o'clock dem si taati pare bi di enu jën mm-hmm. xëy na vice président moom su demoon foofu noonu dina gis ndawi réew mi te am na Banjul yéen su bari yu nekk foofu ñoo xam ne day fi semaine ñoo xam ne every suba six o'clock sharp six dañoo dem si bij bi suñ paree dem jaayi ji ko xam nga ne kooku léger wut ah, waaw tayal am solo ah, ñu gis ne soo ne ni tayal ah, wax bi da ko war a généraliser mm-hmm. foog naa loolu moo gën a am solo donte tey ndaw bu jóg rek ak sa am xam sa xam mooy dama bëgg a suma waajur ñu war see def geste bu baax a baax a baax wel Ablaye ñu gis ne so far lan moo nekk sa sa sa sa impact of this youth empowerment programme gën ko xamee yàpp si biir Banjul waaw loolu moom duma si xaw a sori tuuti because wax dëgg ne yàlla man si suma gis-gis gisuma xëj na mii bi mun a man maa ko xamut wala ene ñeneen xam nañ ko impact bi nga xam ne yëpp moom la def Banjul man gisuma ko de wax dëgg ne yàlla gisuma ko xëj na ñeneen ñi mun nañ ko gis waaye man personnellement man Abdoulaye Suare man gisuma ko loolu moom mun naa ko wax moom waaw Ablaye lan moo nekk uh, sa advice out there si ndaw yi nga xamante ne si biti tey suñ la ne woon tey nga advice leen yow lan mooy nekk sa ay kàddu jëmale ko si ndaw yi si biti. waaw loolu moom dinaa si waat du tuuti rek mm-hmm. man daal li ma njëkk mooy ndaw yi ne ku nekk na nga gëm sa boppa wala kenn gënal sa boppa tamit mm-hmm. nit moom si li nga mën a nekk rek si ndaw li nga mën a ut rek mm-hmm. na nga ko jàppee ak fula ak fayda. waaw bi ko wéykat bi wane ne mun a fula ak fayda mooy jaay daar mm-hmm. si nit ki ni ndaw li la yàlla wërsagale na nga ko doyloo mm-hmm. man loolu lay advice mooy wut si nañ step up ñu jël challenge mm-hmm. understand so loolu lay mën a wax man ndaw bi ñu nekka parce que ñu ñu ñu try ñu contrôle maximum discipline dafa important trop si ndaw definite ñu ne lu la yar mayut na la ko xañ mom dafa important trop so lima ma wax suma mbokki ndaw yi moy ne ne ku nekk jog taka sa tibé ligéyal sa bofa because suma har, suma mag sa mag dafa am family. te dula mëna dimbalé dimbalé sa dimbalé la yow tam yow tam ilek da nga am family. so yow ndaw bi yow ya wara step up dimbalé sa bofa elutil anin bi nga am nga nga put ko into good use am understand so man loolu lay advice suma ndaw yi mboolem koo xam yang yaa ngi yaa ngi ndaw na nga gëm sa bopa waaw ko kumal sa bopa rek so gëmee sa bopa rek di nga dem waaw so man loolu la am de luma advice ndaw yi eh, mu don lu am am solo ñoko di gandor eh, ablay bala nga dem dina eh, bëgg nga wax oh, ma si tinkalu ndaw rek ablay te yow lan mo la gën a naxari si sa dunda xamne soko xalaté sax ko xalaatee sa xol bi daf ba nga bëgg a waaw lolu mom foog naa ne su ma ko buggee wax sax mun naa fi génne ronjam amoon staan mm-hmm. waaw waaye waaye ñu tënk ko rek mm-hmm. maanaam daan si duma lu ma si duma dunda lu ma gën a naxari mooy li ma mujjee gi suma yaay loolu ma gën a naxari waaw foog naa ne ma gën a naxari man maanaam daal li ma mujjee gi suma yaay loolu ma naxari tey maanaam daal tey takk naa jabar tey si suma ga si suma ganaaw yaay li ma gënaloon suma yaay fekkee ko waaye ala kulli loolu moom yàlla moo ko dogal waaw yàlla moo ne yàlla waaw waaw

dama dee suma xol daf dee seeta trop because man awma kenn lu suma wajuri yi man suma wajuri rek la am te man awma sëriñ man suma mhm. papa moy suma sëriñ moy suma yëpp moy suma wasila wa so ma ngi oj tamit suma mbokki ndawi ñu sen papa ak sen yaay bu baax baax nañ jël sen yaay sen papa def len sering, moy mooy because sanga di dem si sëriñ sering mu na demal sa yaay sa papa mu ñaanal la so amé ñaani wajuri rek am nga lépp man tay lima gëna a ne suma adana moy ma ànda suma papa su kontaanee ne rek man kontaan na. nan lay kontaan. torop sax. Ah, mu doon lu am am solo ñoo ko diggandoor waxtu xoj nañu fii lañ ko emale ba beneen yoon si beneen dégg jamono ma leen wax ne bu leen fàtte pour subscribe ah thumbs up na na ca dal rek na bel bi ñëw jërë def beneen yoon.